waaw asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nga xam ne yéenay faral di siiw seen émission doxantu seen émission doxantu tey dafa ñëw fii fii si Kabana Night kan ki nga xamante ne mooy Bamba docteur Guèye ñu ànd see kan waa Prince Family ñu fas yéene daf de soirée bu rëy ah ànd see kan euh, feeling Mor Feeling Sarr waaw kii tey nag ngay si ànd seen émission doxantu siste bi nu suba ñëw fii tey nag fas yéene xool lan moo am ci bi sama caméraman danga may topp ndànk ñu dugg ci biir sama rob na fi ma génn tey ah Ndonga Diaw borom marché Colobane moo génn man fii tey waaw kay danga may topp dañu xool ndànk lu am ci sama caméraman nee naa la ba tey ñoo ngi ci buntu Kabana naaj gëlëm ñu dend ki nga xamante ni mooy présidente mooy présidente bi mu ngi tudd Mounass Mounass ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu chérie ci loo ne. ci loo nekk. namm la rek xanaa. tey nooy waajalee soirée bi. soirée bi ñu ngi koy waajalee comme yéen ñëpp ñu ngeen koy waajalee ndax dafa nekk soirée boo xam ne chaque année dañ koy def muy 48 heures boo xam ne moom lañ doon foo seene ci itam sargal ki nga xamante ne DJ Prince nga xam ne moo ñu ba am wa di ko dal, daal comme ñëpp niñ koy waajalee. mais dama gis ne chaque année da ngeen koy organiser mais ren nan nga ko gisee soirée parce que ñi ko ñoo bari tamit nan ngeen ko gisee. waaw dañ li wax rek affaire bi day gën yokku di gën jëm kanam kon sant yàlla rek ah, di wax gis dafa parce que def presque ans chaque année ñu def ko kon rek chaque jour dañuy gis day yokku. waaw. waaw kon ñu ngi lay souhaiter bonne soirée. merci beaucoup chérie merci beaucoup. ak bi Binous waa El Vision Média ñu ñëwoon tey bi def doxantu noo gisee émission bi. waaw émission moom neex na moom trop waaw yaa ngi def sa liggéey daal ni mu waree waaw ça c'est très bien dañ lay encouragé bu baax xam nga di la wax gën a góorgóorlu rek jàpp te bàyyi mooy tax a yegg fa nga jëm quoi ndax xëcc bu dagul dig xam ñu bari fii leen doore xam ban dégg leen quoi comprendre nga kon nekk ci gëm ko waaw. merci beaucoup wax ji rafet na ñu ngi lay wax bonne soirée. ok ñoo far. merci beaucoup. fay bu baax. si loo nekk. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. sama soirée mu ngi neex. waaw soirée bi de mi ngi nii rek. noo gisee organisation bi fii ci Tropique ak soirée Mode Feeling Sarr bi. waaw organisation wax dëgg yàlla jaar na yoon. macha allah wax dëgg yàlla. mais moo ngi neex. waaw mi ngi neex koy yëg. waaw bonne soirée kon. ok merci. merci beaucoup. Fabrice kontaan nañ ci yow bu baax a baax. di kota aussi di teewaay di fii ci turam bi ci bis bi nga xamante ni tabarkàlla presse famille ñoo di ci sargal ki nga xamante ni moo di Mouhamed Badiane presse ku ko xam xam ko ci ndaanaan ku ko xam xam ko ci am jom ku ko xam xam ko ci nangoo liggéey borom wol fajiri may ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax baax Mouhamed Badiane tey nag soirée bi dafa ala dawme ndax tabarkàlla bañu ko tuddee Mouhamed Badiane di ko ci sargal mu àndaat koog beneen daanaan boo xamante ni tabarkalla moom lañ ko tuddee muy Ousmane Diallo di jee Ousse borom convergence FM may bu a mu ànd ci nag ak doomu may ñaan ngeen tàccul ma bu baax Omar Seck waaye ba tey bis bi dafa ala dawme ndax Eh, ki nga xamante ni mooy parrain bi di Tukulóoru Bàyyi mu ngi fi ñëw def délégation bu baax ak enveloppe am bu baax may ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax a baax Tukulóoru Bàyyi sama mag sama xarit aussi mu ngi fi Ousseynou Mbaye sama mag di sama xarit may ñaan ngeen tàccul ma bu baax a bu di docteur Mour nga xamante ni saa yu feebaree moo koy faj kon nag balaa ñuy sori dañuy bàyyi Modou Sarr ñëw dëggal leen tàngal yaram yi su ko defee ñu daal di ñëw léegi ci kanam incha allah jàkkaarloog Mouhamed Badiane fas yéene defanteeg moom lu baax ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci saal bi. leneen li may ñaan nag mooy bu Modou Sarr tàmbalee damaa bëgg piste bi na ñëpp jóg jàkkaarloog moom ndax nag ñëw di toog di xoolante indiwuñu fii dañoo ñëw soirée pour bégee kon damaa bëgg ñëpp bég xol yi féex dëgg neexul. Aziz Tama maa ngi lay nee naa la ba tey ñoo ngi fi subi soirée bi dama fi koo xamante ne moo waral bés bi ki nga xam ne ah moom la moom sargal mooy prince prince nag dañuy daagu ndànk talal ko suñu micro laaj ko nu gisee soirée bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. prince ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si.

di wax ne li mu leen di wax chaque jour rek man ak ñoom yàlla moo ñu boole nekkatul affaire rajo ak télé mais ci xol la nekk ñu di ko dund kon nag ma leen di wax jërëjëf sama xol sedd na jaajëfal ñëpp ñu fi teew na jërëjëf Prince Family waaye jërëjëf Mounas mi nga xam moo leen jiite parce que lépp moom la ak Khadim Gueye bàyyi Serigne Saliou kontaan naa ci ñoom bu baax a baax. ñu ngi lay gërëm kon waa Elvision ñu ngi lay gërëm di la wax bonne soirée. merci beaucoup jërëjëf merci dende ak suñu ki nga xamante ne mooy parrain la parrain la ci bés bi sëñ bi lay nuyu. maa lay fay. si loo nekk. sant sëñ Tuubaa baax a baax. dégg naa parrain nga ci bés waaw waaw xam nga gars yi moom dañoo baax rek parce que prince moom c'est mon ami yàlla def ñu bokkoon rajo bu doon liggéey muy rajo Sopi FM euh, et puis fans club bi si nekk samay xarit donc ñu boole ma ci bés bi euh, ñu ñëw ci euh, bàyyi lépp luñ doon def ñëw jàppale ko a parce que vraiment suñu suñu frère la te ñoo bokk milieu bi ak moom. mais nooy dundee soirée bi quand même mi ngi neex. waaw mi ngi door a commencé bi te xam naa ne Modou Sarr moom daanaan la parce que dèjà rek fi mu duggee nii Saraba bi euh, démb la quoi dafa am lu bare bare bare lu mu ñuy fàttali vraiment ñi ngi ñi ngi ñi ngi toog daal di xaar instant bii nii quoi mi cool. kon ñu ngi lay bonne soirée. merci beaucoup. kontaan nee naa la ba tey bul bëgg di juum yaa ngi ànd système bi nii waaw kay borom émission doxantu dëgg neexul ñu dem xool keneen waaw kay. Hallelujah. xam ne moo di DJ Price bi bëgg ñu tàcc loolu bu baax a baax. Euh, nekkul loo xam ni nii dañ ko jël jox ko pour mu ñëw rek toog mais dañ koo fas yéenee delloo juggal ci bés boobu parce que dafa am fu ñu jaar ak moom euh, ñu tund ko ak moom yàlla xam na moom xam na man xam naa te yéen waa presse famille aussi itam xam ngeen donc kon bës ba incha allah rabi ñuy ñaan ñëpp ñëw teewee loolu parce que bëgg nañu DJ Price ñu xam ni euh, moo DJ Ouze am na lu leen boole te olof Njaay dafay am na muy faral di wax ragal féete day xaje wërsëg te ñun dañoo far ak moom te luñ ci góobe ko yàlla na yàlla def jàmm Mohamed encore une fois ñu ngi lay bëgg di bëgg waa Preston yëpp di bëgg aussi tam di jël Omzo borom réew mi FM xam nga animateurs yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que tey foo gis Omzo gis nga fa jë Prince foo gis Prince gis nga fa DJ Ouz foo gis Ouz gis nga fa Baba Soirée gis nga fa keneen ak keneen ak keneen parce que rajo yi ñu nekk ñun ñëpp ñoo bokk tey ñoo bokk bàyyi FM lañ sant bis euh, dafay wax ne ma rajo yëpp Fallou Mbacké Sopi FM Fallou Mbacké Walf Fallou Mbacké Rewmi FM Fallou ah. FM Fallou Mbacké kon mi kon yàlla yàlla def jàmm ci réew mi en tout cas ñu ngi bëggee nga xam ni dagg nañ seen ay yitte ñëw fii parce que ku ne xam na ni temps dafa cher kon nit bu bàyyi ay yitte ñëw ci lu mel rek vraiment sant ak dem daf koy ñeent tàcculaat leen seen bopp bu baax a ay jërëjëf Ousmane Lat Joor man ko laajee loo bokk ak Touba. dëgg yàlla baax na nga dégg kàddu yi mu wax doyoon na ñun mënut fee wax lu wees la mu wax tey ñu ñëw fekk orchestre boo xam ne ay daanaan yoo fi nekk ay professionnel xoolal grand aada aada ci waaw kuy guddaal gii. man tee ko jàngal waaye xale ci moom lañ jàngee yëg. jaajëf képp kuy teewat ci moom ni ngay looy ak unité. aada waaye tàggatoo ma aada waaye loxo ci kaw si. jaajëf waay jaajëf. Modou way lu neex. Aziz nekk nii sama ginnaaw di tëkkat bu mag fu ne mu ànd fàttali si toj réew mi toj ma ñëw gis sama xol dafay set DJ Prince nag day suñu xarit suñu doom lay kenn la suñu asam mesere maam Cheikh Ibra nga fekk ma fi sama gaal balaa jeex dama ne balaa maa wàcc chaîne bi da nga fi fekk yow xaar may mu ne Diouf dafa taxaw nii Kaja toog ne ñoom Adama Ndiaye xale yi ne ci ginnaaw ak ñi nekk ci seen ginnaaw ñun ñëpp waa presse famille bi ñu jàppee ba léegi bàyyi dama ni ab tegale bu guddee si daal bu jiitu bu jiitu woon coow li coow li yow la may mën a mënul a métti ginnaaw bi mais bi nga jàppee ba léegi wu loo yaay asgor yaa bëgg Mouhamed Badiane yaa ko jàppale dama ah. si ginnaar amul ba ci kaw sàcce ko du jóor Baye Assane yow ma bëgg nga jege si ma fii li ma wax léegi rek li wolof Njaay naan ku woon mburu ku ne di nga dëkk te ku ne Mouhamed Badiane di nga ne Assane ba sereen tabaarkàlla kàddu gaa ngi noonu waaw asalaamaaleykum wa yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku xam naa ni kàddu yi dund bi daal tukulóor bàyyi nga bi te mi ngi laal poosam mais tukulóor ma lay ñaan nga dencaat li nga yor ba ci kanam ah waaw loolu gën waaw kon sant leen gërëm leen nag di gërëm sëriñ Xaadim mi ndax it wax dëgg yàlla ba mu àndee ak ñun ba léegi day yaatal te doomu aadama bi la dàqee yaatal rek la gën toll jamono war di wax lu baax di def lu baax dimbalante lu te so loolu si la Xaadim di yaatal di gërëm it bu may mun a Diouf bi nga xamante ni fépp fu mu teg tànkam bu sañoon dañ nan lay baaxee ñu nii kon may mun lay ñaanal yàlla yàlla sàmm la ak mboolem koo xamante ni yaa ngi presse famille waaye sëñ xaarim euh, sëñ Abdoulahat Mbacke Gaye mi ngi nii moom it dar dar dar loolu may mun a jàppale ko ànd ak moom ba may mun a Diouf nekkee téye presse famille ba léegi suba ngoon guddeeg bëccëg mi ngi si ginnaawam yow it noonu barki démb moo jaay lañ doon mayee démb rek lañ doon mayee rek euh, dem nga xamante ni dem nañ ba rajo yi naan rek amatu si réew mi waa presse comme ni yëpp ànd ko waree sargal dafa yàgg lii ñu def nii kenn ku nekk bëggul amul nga yéene dem sa kër sargal ko wala nga dem këram sargal ko léegi nag buñ ko yombalee ne nit ñi ñëpp nañ ñëwoon nga sargal leen kon dañ koy sant di ko gërëm sama xol sedd te yaakaar naa ne li ma wax lépp gars yi wax nañ ko di gërëm tukulóor si fi ñu teg seen bët du youtubeur ñoom te la ñuy visé kon suñu directeur alaaji Lo Siré Makendaam yàlla sa jàmm yaag ak équipe bu El Vision Médias yëpp waaye ba tey du ma fàtte ne ci kàddu waa Prince Family laay waxee du ma fàtte ne waa Prince Family ñoo xewle tey te bu Prince Family xewlee su ma jëlee ci bureau bi Serigne Abdoulahat mu wax

damay dem soirée tamit bëriwul rosée man maa ngi ci yëngu wax dëgg yàlla daf mu ñu woo rosée dañu koy séen xas wala ñu ñuy saaga day sax jaral nañu parce que ñi mu taw ci kaw seen bi ñëpp kenn bokk ci sa ci seen bi comme ñoo bokk ndey ak baay lan moo ko waral Mouhamed Badiane ndax. depuis 2011 ba léegi ñu ngi te dara ñaawul te li fi la tey wàccee fii moom am na fulla am na fayda te comme man sama turam dafa daan wax naan su ma waxee jagow ñu day xuloo ma dal te bu mu neex kenn du tax ma ne ko yàlla luy ñëw suma ko Mouhamed suma ko ma bëgguma wala ay morom lañu dafa lu parce que ku taxaw ku dee ku xam ne moo di DJ Prince bi bëgg ñu tàcc loolu euh, mais dañ koo fas yéenee delloo parce que am fu ñu jaar ak moom euh, ñu dund ko ak moom yàlla xam na moom xam na.

di leen gërëm bu baax ci bis bi tey xadi li nga wax dëgg gàcce yi daal am yaa baax mu demee su yaa baax merci baat bu gàtt la waaye bu def dara doo ko dégg merci. day sax jëmm ji di uus day suñu xarit di bàyyi faal di ko yàlla baaxal. di gërëm bu baax la présidente bi nga xamante ni fépp fu mu teg tànkam ba sañoon dañ fay teg suñu tànk lépp loo xamante ni suba ba ngoon mi ngi siy dugg woo waxtaan si ak ñoom ñu nan lay baaxee ñu nii lañ ko ne nañ def loolu kon may mën a juf ñu ngi yàlla yàlla sàmm la ak mboolem koo xamante ni yaa ngi presse famille waaye sëñ xaalis euh, sëñ Abdoulahat Mbacke gay mi ngi nii moom it dar dar dar loolu may mën a juf jàppale ko ànd ba may mën a juf nekkee téye presse famille ba léegi suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi si ginnaawam. waaye dama lay encouragé rek oh. waa El Vision bi ak xale bu jigéen ñu àndal seen koy félicité ci liggéey boobu. waaw Assane yombul na merci beaucoup. may gërëm maa sama camarade ko kontaane bu baax a baax waa El Vision Média tabarkalla ñëw li nga xamante ni si moo di événement bi ñu di leen gërëm bu baax aussi di leen

waa Prince Family laay waxee duma fàtte ne waa Prince Family ñoo xewle tey te bu Prince Family xewlee su ma jëlee ci bureau bi Serigne Abdou Lahad mu wax yaakaar naa wax na Prince waxal na Prince Family yëpp. di leen seeraay baax a baax di sàkku ji yéen ñaata di leen ko ñaanal yow mi képp xam ne def sa tànk bi wala seen borom fay la ndax wala nañu lu yëngu lu nekk la ko yëngal bopp doole. man damay faral di def li sax bëriwul damay dem soirée tamit bëriwul dama doon man maa ngi yëngu mais Mouhamed wax dëgg yàlla daf ñëw ci boo xamante ne foofu fu ñu woo loolu dañu fay séen lu ñu xas wala ñu ñuy saaga lay sax jaral nañu. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam dañu leen jaajëfal bu a parce que ne te ku ci mel ni man amoo habitude di ñëw suñu mel ni kon nga sëñ Abdoulaye waxee leen waaye nga saytu ni Mouhamed mën a déplacé ko bu fekkee ne tamit dañu nekk ci milieu rajo ñu pour auditeur d' abord xam nga moo xam ne nekk en animateur ngeen am lu tool bi ñu tey ñu ngi leen sargal yi sargal tuuti la sargal sargal ko deful dara lu am. yow di jéem gërëm na la Pape Cheikh Diallo gërëm na la Cheikh Sarr gërëm na la di jéem Omzo gërëm na la. xaadim gërëm na la uus gërëm na la képp kuy animateur ci réew mi ñu baaba suwaar yi ñëpp gërëm nañu la xam nga lu lay yàlla yàlla dafa ca fi nga bëgg a egg ci wàllu aar ci animation yàlla la fa yàlla yéegale yàlla nga dem am sa télévision boobu loolu laa ne woon naa ko sànq ci kàddu yi ñu jël teraanga bi nag jébal la ko mam xaadim bismilla yéen ñi toog booy moom jug leen taxaw farbitu man mii taxaw su ma téyee micro tey yàlla ak moom la ndax maa nga toogoon ca sama ruux di ñëw ay veste ak ay marinière rek ay tay baas tabarkaala mu génne ma boole ma ak waa Prince Family ba tey ñu naan Xaadim Gueye bàyyi Serigne Saliou moom mii moo ko waral kon nag kon nag Badiane Sakkour Ali buñ la sargalee war na ah daa mel ni daal lañ koy sargale daal daa mel ni jikkoom la daa mel ni la mu mën lañ koy sargal tàccu leen loolu joxal ma ko tukulóoru bàyyi joxal ma ko tukulóoru bàyyi. ah tabarkalla tàccu leen loolu. Ah, ñu defal ko micro. yaakaar naa kuy wax ci micro bu ñu ko décorer micro war na. tabarkalla muy lu rafet macha allah. joxal leen ma ko tukulóoru bàyyi mu décorer ko photo photo leen ma ko s'il te plaît ndeysaan